bokk yi gannaaw bu nu sante sunu borom julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal di dénk sunu bopp nu gën a moy ci ndigali sunu borom ndax mi ngi wax ci alxuraan ne mooy ci ndigalam yi lu ko mat la ndax kat na ngeen xam ne ëllëg jege na lool te lu waay defoon rek la fay fekk bu dee aw yiw yàlla fay ko ful ko su dee safaan bu mu jot a tuub yàlla delloo ko ko te amalu ko fa njariñ yàlla moomu nag moo ñu tàggatal guddi yi ak bëccëg yi guddi ak bëccëg ba lu bari ca luñ ci soob ñu mën ko caa def mu ne dégg du yëngu du jàmbat waaye moo tàggat jant beeg weer wi ñoom moom ci ndigalam lañ tënku loolu waxin la bokk yi amul kenn ku fi mës a ñëw ci kaw suuf nit ñi bég ca ba tax jant bi yeex a fenk wala mu yeex a sox wala kenn ñëw fi wala mu jóge fii ba tax weer wi nii muy def du ko def saa bu amee ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu xool ko mu am fan weer feeñ bu amaatee fukk ak ñeenti guddi jëm juróom taawule waatu lëndëm foofu nag njàngan mu rëy a rëy daf fee nekk moo xam ne kenn ku ne mën na caa xool xam ne yàlla mooy kenn bokk yi jant beeg weer yi bi ñu tàmbalee def nii ñuy def ba fi mu toll nii suñuy maam ak maamaat yëpp fa lañ ko fekk bàyyi ko fi ka koy doxal nag di ko jox ndigal muy dem ak dikk mooy subhanahu wa taala kum dikk war nga ko gëm kum dikk war nga ko gëm ci suñ biir danañ diggante am ci ñooñ lañ lay dig doo ko gëm waaye am nañu lu ñu la wax danga naan aal ma nangam ba diw ba ma gis diw ba mu jox ma la ma digoon boo ko waxee ak boo ko waxul waaye da nga ko gëm yàlla na nu yàlla dimbali ba nu mënu ko gëme noonu wéetale ko noonu yi teg ko foofii mu tege moom moomu nag moo yónni sallallahu alayhi wa sallam rasulullah mi nga xam ne ak dundam gépp jullit daf koo soxla bokkut ak koo xam ne da ngay dëkk ak moom lii nga koy xam lii doo ko xam moom sëñtoon a nëbbu dara ci ay jëfiinam akub dundam bokk yi xool koo xam ne dañu koy topp di ko topp ba bu duggee ci biir néegam di dallu sax ana nu mu daan tëdd di nelaw ndax kat yàlla rek mooy koo xam ne laa taaxuduhu sinatun wala naw waaye niroo gim niroog ñun bind di wax nuy dégg faw muy def li ñuy def lu ci ëpp bu dee nag loo xam ne dafa laal pas-pas wala diine dañ ko caa war a déglu ba xam nu mu ca defoon wala nu mu ca waxoon moom la sëñ bi bind ci ab téeréem bu ñuy wax jazbul qulub li allaamil xuyub ci alquran la doon wax waaye alquran jooju mu doon wax ba ñu laajee ku ko jege woon soxna Aïcha radiallahu anha dane jikkoom daal ku ko bëgg a xam xoolal alquran ndax muy def ngay gis moom weesu na waaye xool li alquran digle ak di ko tere lu mu tere ma musu ko caa seen ndax maasuum la waaye lu mu mës a digle def na ko deflu na ko itam yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam moom suñ bi wax ne wa huwa alladi man ihtada bi hadiyihi naala huda wa yaxtafi lfawsa wa yaxtawi lfawsa gada daa ismatin min niqami képp koo xam ne laaj nga fa mu tegoon sa tànkam nga teg fa sa tànk yaa ngi ca yoon wax te kat sa aajo ju faju fii lay tàmbalee jëm ëllëg ku ca nekk looy dégg cib safaan boo teggiwut sa tànk bee boo nga xam ne yàlla musal na la ca yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam li mu mujj a wax ci ak kàddu mooy pas-pas bu dëgër jalaalu rabbi ar rafia maa ngi waat ci màggu sunu borom gi nga xam ne kaw lay jëm waaye dutu jëm suuf mukk faqad ballaxtu la ma waroon sama diggante gi yéen la ma yàlla ne wax leen ko wax naa leen ko ku jëf sa jaan wàcc sama jaan wàcc ku jëfut sama jaan wàcc na daat na teg waxatut boobaak léegi kon boog yàlla nañu yàlla dimbale ba bu ñu fi bàyyi ko ba faatuwaale tawxiid ju wóor yonente boobu sallallahu alayhi wa sallama daana def su ko mbir dabee moo xam ne mbégteem doomu aadama da cay feeñ du tëggulu du sar xollelu waaye day sujjóot day jublu xebla sujjóot siggawaat sujjóotaat soog a jóg ñu ne ko loo ci jublu mu ne shaakiran lillah wala shukran lillah waaye su daaree ni ñun kenn mësu koo dégg mu xàqataay ndax ree mook nit la yàlla bindaale su munta ñàkk ba munta ñàkk day fab loxoom dëpp ko ci gémmiñam moo tax sëriñ bi bi mu koy melal daf ne musta ànd ak aw nit mukk ñu naan kële moo la ko làq ndax du ko ñuy làq waaye du musuñ koo nég it mus kenn musta ànd ak moom wala ñu ànd ak moom di ko nég ndax ñoo ko gën a gaaw ab tànk déedéet kenn du ko jiitu ci dara noonu la ko yàlla bind waaye ku yaatu woon ab dënn la ci jëflante ak kaf waaye kaf gépp dëgg lay doon waaye bu ree jotee day mooñ waaye du kekku ree ba kekku déedéet loolu ci mat la bokk kaana yatulu kulla man mashaahu fi kulli zaman wa kaana waasi al atan yadxaku bi tabassum waaye kenn musta xam ci kaw suuf ku gën a yërëmoon gone akuk njabootam njaboot gi nag mooy ñun ñëpp ci lañ bokk soo déggee wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali ñun ñëpp ci lañ bokk alu muhammad mooy jullit ñëpp waaye ku bari woon kersa la mu ëppoon kersa fuuf xiig boo xam ne mos a génn seen kër waaye nag la kersa kay bari bari bul def ci kanamam lu ënt ak pas-pas bu dëgër rawati nag nga di ñaawalaate yi xew léegi waaye daana defit léeg-léeg mu ne tekk ab diir lu ñor xom moo ko daa tax di wax moom ci boppam wax na ne ku gëm yàlla gëm ne bis penc ngi ñëw nay wax lu baax bu noppee mu noppiwaat ba wax jotaat lu baax mun waxaat man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw li yasmut aw li yasmut mooy te noppi aw ci xaraf yi ataf yi ci la bokk te noppi du ñu yemale wax lu baax ak noppi fal yaqul xayran na wax lu baax aw li yasmut wala mu noppi déedéet day wax lu baax te noppi waaye su daa waxit kenn daa wut laaj sa moroom ana lu mu wax lu waay sori sori da koy dégg wax ji leer naññ ci moom te it xamkati xadiis yi daanañ ko natt ci ne kuñ ne lu mu waxoon bi sàngam boo ko fàttee doonte yaa ko nettali woon duñ ko jàppee xadiis ndax kenn du dégg lu mu wax nga di ko fàtte kenn du dégg lu mu wax te mu wér nga di ko fàtte day leer ci sa bopp day gën di leer ndax daa bokk ci sa dund li nit ñi mën a fàtte mën a fàtte lépp duñ tegale ñaari fan fàtte koo naan te fekk ñu ngi wér luñ mën a dee mën a dee wax wala junj sax danañ junj lu mel ne ndox ñu jox leen ko noonu la dundug yonente bi mel ci dundug jullit yi sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk yi fii may bëgg bi may bëgg a wax nii moo mata taxaw tuuti ku ko mas ne Muhammad nee na labbayk bu doon suñu jamono dañ naan ku ko bëgg a jot téléphone mën nga koo jot téléphone bokk yi kon ana ab jullit ak saa boo ko wooyee keneen ngay jot ku ko mas ne Muhammad nee na labbayk yàlla dem ba ne leen bu leen ko woowati nii ngeen di wootante ci seen biir ndax tolloo wut ak yéen niroo wut ak yéen yaamut ak yéen laa tajcalu duaa arrasuli baynakum baynakum ka duaai baadikum baada lu néew lañ gis yàlla wooyee ko Muhammad ya ayuha rasul ya ayuha nabi mu ëpp ci alquran bu bëggee wax ak moom kon ñu wala téléphone nga jël tekkiwul dara boo ko dendalee ak dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nam tollu woon ana ñi nga xam ne bu ñu amee li ñuy wut dootoo leen jot téléphone keneen nga jot wala ñu soppi sax fa nga leen daan wooyee yi nga leen daan wooy yëpp dañ koy soppi def ko yeneen yoo xam ne dañ koy jox kenn ne ko kat yow dong laa ko jox yow dong laa ko jox ju su baree mbaa du gën a bariwaat waaye day am ñoo xam ne bëgguñu jot leen rek waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci matam ku ko mas a woo wuyu na la ak lu mu tuuti tuuti te it musi su ko laaj moo xam nga di ko ñaan dara te joxu la lam am su amul lu mu la joxe du la dig soo ko laajee mu ne cell ab diir bay boo nga dem xam ne yoru ko waaye du la demal ba suba du la demal ba ngoon foofu it am njàngata ngi fekk ma barab sàngam négal ba weer wi dee lu mu xam ci barab sàngam ba mu la wax da nga ko fa fekk waaw wala déet wala yow da nga ko fa fekk dana fekk ngay dund wala déet fu lu mu xam ci weer wu dee nga dana ko fekk wala yow dana la fekk ci matam day wesu ko laaj mukk loo koy ñaan te joxu la su amul lu mu jox danaan cell ba nga xam ne daal toog nga lu jaadu xam ne nekku fa mu dem waaye bu daan ñëw itam ñëpp danañ xam ne mi ngi ñëw ndax xet gu neex daw dencal dara ëllëg loo gëtt mën a mel ci njëg gu kawe benn yow la ko def sotti ko suba ëllëgus yàlla la waaye rangale butéel yu ne gàññ gàññaaral yépp def yu jafe ak njëg nga xam ne benn boo ca wecciku mu dundal ñu bari benn bisee ñëw rek bokk yi faatu dikk ñu daal koy rangale ni ñëpp gisandoo ñu xam ne moo ko moomoon yàlla ñu ci yàlla musal waaye ku fonkoon ñi yorul dara la woon li ëpp ci ay jataayam ñi yorutoon dara la ci gënoon a taamu moom la sëñ bi wax ci mawaahibu naafi ne mushkin li shaakin bishrun li baakin musrin li xaakin wa di nidaa'i gunmu faqiri jabru kasiri siitu xaqiri baagi wiqaay mooy ki nga xam ne lu waaye masa am yitte soo ko jàmbatee fa kanamam mu faju waaye mooy koo xam ne ku masa jooy boo agsee fa moom mu nax la ba nga noppi nax gone lañ koy def waaye dana dalal sam xel ba say rongoñ fer musrin li xaakin fu waaye masa jóge it boo ne ko dama la soxla woon mooy la ayca nii ko suñ bii fi nekk suñ mun toxaa di defee lu mbooloo mi bari bari kenn ku nekk ak sa soxla dana la déglu nga wax ba àggal mu tontu la la may tontu keneen topp ca gaaw leen gaaw leen ji lu koy métti lay doon léeg-léeg ndax musrin li xaakin kuy déglu kuy nattali la ak lu nattali ba mën a mel dana déglu ba nga àggal su lay tontu tontu la la tolloog sa dégg su la du tontu na la lii kenn du ko waxee nii wala dee su ko defee nii ci ay teggin waaye ku ko mos a woo itam wuyu na la mooy bi ma wax léegi rek bu doon suñ jamono dañ naan ku ko woo téléphone moom ci boppam moo jëlal boppam wala boog su gisee sa numéro danaa la woowaat ndax kat dañ koo sàmmloo te bokk yi loolu ñëpp a ko war a jël koo xam ne la Seydina Omar waxoon ne si ndax ba nekk Irak sax boo dee ca garab ga daanu am gàllankoor mënut a jóg mën mii lañ koy laaj ndax ci xilaafam la nekk sakkantuma ak nit ñi sakkantuma ak nit ñi nag kon boog yàlla bindut nit ngir ñu di ko doye dal yàlla bindut nit ngir ñu di ko xeeb kon loolu luñ mën a jàngale ci jox yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xun mu faqiir yi bi ma wax ne léegi ñu ëppoon ñu doon toogal ña ko ci gën a doon mooy ñu rutoon dara ndax kat bokk yi toog ak waroomi alal sëñ bu mag bind na ci téeréem bii mu tuddee silkul jawaahir fii axbaari sarair ne kuy toog lu bari ak buur walla di toog lu bari ak boroom alal léegi tey mu tàmbalee fàtte li ko fi yàlla indee woon bu dee buur luy tax am nguur ak luy dëgëral nguur képp la fay dégg su yàggee mu fàtte nguur ak suñu borom gi nga xam ne du jeex te moom rek moo mën a fay su dee toog ak borom alal it lu koy gën a xiital ci alal dong dong dong dong la fay jële te su boobaa mu wut ko nu mu ko mën a amee baax na te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kat ëllëg yàlla danaa laaj nit ki alalam fu mu ko jëlee ak lu mu ci jote def ak laaj yu bari waaye ñeent ñeenti laaj waaye boobu ca la bokk fu mu jëlee woon alal ji ak lu mu ci jot a def sëñ bi bind ko ci Masaalikul Jinaan ne bari na ñooñ soone leen woon tey lu ngeen bëgg te fekk faatu nañ bu yàgg mooy dellu si waat adduna lu mu néew néew ndax xam nañ fële la fa nekk rawat nag jëf ju baax joo fa yóbbaale joo xam ne da nga ko dawaloon fekk ko fa kon boog xun mu faqiir yi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonoon ku nekk war na koo jàngat koo xam ne kii yorut rek desu ko wax desu wax ak moom desu ko gis desu toog ak moom loolu du sunna waaye jabru kasiiri ku daan defar lu yàqu la lu nar a yàqu la lu nar a yàqu bokk yi fekk koo xam ne mel na nam war a mel ñu di la wane ci moom naan moo defar kii amul solo waaye ki man dëgg dëgg tey jàmbaar mooy koo xam ne nit yàqu woon na ba noppi mu defaraat ko waaye surtout xaqiir yi ñi amutoon kàddu it moo doonoon seen kàddu ku mas a tooñ nit ne ko danaa la sànk tam gëm ko bu dawee ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndax kooku duñ déglu ay waxam yonent bi mooy doon baatam mooy doon aw làmmiñam te sallallahu alayhi wa sallam ku mu waxal faaw nga dégg kon boo kenn kuy kilifa ku ma doon la ko tàmbalee ci waa këram it war naa seet tànki doxin yonent boobu sallallahu alayhi wa sallama ak képp ku ko yaakaar ci moom rek mu fexe ba saa boo ñëwee ne ko dimbali ma ci nangam su dee lu ñuy wax la mu yëkkati kàddoom waaye bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallama it ci sàmmam ci xamam wartiif waxuma la mag waaye daawul romb aw gone yuy foog te nuyuwu leen ca lay dem ba gone yu bare bare bare bari far def jataayam grand place léeg-léeg mag na jugal tooge ne mu ne ko waaw waaw ñëwal nii mu gën ko jege sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne fu leen gone séene daw waxuma la gone yay def dara di fore waaye fu leen gone séene képp gone yi fu leen séene tasaaroo ndax lañ xam sa gone mooy fàq ab yar wala summi aw dal wala yónni ci naaj wu tàng wala di lekk li ko bay wala wala wala ba gone yi foñ leen far jàlloon yàlla musal ci loolu waaye ku daa def iisaar la ci boppam iisaar mooy loo xam ne da nga ko wut ba am ko te na nga ko war a wute mu leew la doom nga dégg ku koy wax soxla gum ko soxla nga jox ko ko toog nga jox ko ko toog loolu bokk yi bu ñu ko doon wër dana néew lool ndax ñun ca ca suñuy maam ba léegi li ñu gëm mooy njariñ loo fekkee maanaam loo mënut a jariñoo amul njariñ waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale wut loolu li mu doon jàngale mooy nit ki war naa mën a wut li muy wut na mu ko war a wutee ba am ko dégg ci peggam ku ko soxla te mënu koo am na mu ko amee mu jox ko ko toog xaar yàlla mooy fi alxuraan di wax ne wa yuthiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jànge am na xare bu amoon ba xare ba jeexee am kuy jàmbat ndox ndax mar bu metti ak sukkuraat benn waay tànk porom ndox jox ko mu dem ba di ko bëgg a naan dégg mbokkam mu ne ca peggam naan ndox ndox mu ne kee moom gën a soxla di ko def ba mu ba mat ñeenti nit ñooñu kañ mujje faatu ki ñuy delloosiwaat di ko jox si ñi ñi ñuy dabasiwaat ñoom ñëpp ñu faatoo ndox benn yoon ndax du ko naan te fekk am na ku gën a soxla waaye bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it dadaa seeti ku wéradi am na ñooñ jaala ji lañ gën a fonk ndax jaala ji mbooloo ma dafay bari daamar ya gaare kenn ku ci nekk sañse ñuy wanewu moom itam mu ñëw taxaw ci digg mbooloo ma ñu naan diw ñëw na waaye yonent bi dafa am fu mu ko daan tàmbalee mooy bu déggee ni wit nit wéré dina te la koy xamal da doon dund ak nit ñi daana def saa bu sëlmalee jàkkaarloo ak mbooloo mi ci jumaa ji ba mën a jaar ci turi ñu bare bare bare bare kum ci gisut ne anamu ñu ne ko ñaari fan yi wala ñett bala moo dem ci biir kër gi day jaari foofa seeti ko ba xam lu ko téye dem na ba seeti koo xam ne kii sax dafa daan teg ay taxas ak ay seburit ak yoo xam ne benn jullit bëgg ko laal te fekk mi ngi ak laab ba mu toogee te gisu ko dana ana kooku ñu ne ko daa wéré di mu dem seeti ko mu ne ko yow yaa may seet si mu ne ko waaw waaw da nga ko fa daan teg te gisuma nga teg ko mu ne ko ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon boog diw daa faatu kañ la faatu daaw wareen mi ngi tëdd mu ne ah waxoon nañ ma ko te si mutu musu koo seeti loolu du dund sunna dem ca fa ñuy denc nit moom waxaale wuñ ko bari na ñoon ñuy ñëw lool waaye fa ñuy jullee la ñuy sëlmale dem seen yoon bokk yi bu fekkoon sa ne ku sëlmal dem ku yóbbu néew bi ak ñan ñoo koy dugg ci bàmmeel bi ak ña koy nangu ak ña koy ña cee def suuf kon boo mat na sëkk ci suñu jamono kenn ku ci nekk xoolaat boppam ci diggam ak dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono ju nekk ba ci lii fi xew nii rek ci suñ jamono jii ñuy waxtaanee nii rek bari na kuy romb ab ay gone wala grand place wala marché ba sax di dox ak tànkam te fekk daa am lu mu bëgg donc su ko amee mën naa toog ati ati at du xam marché ba nu mel nu melati bala mu fa ñëwaat daa soxlawaat am na ko kum gis na la jël sama numéro ñuy jokkoo waaye li muy wut su ko amee dootoo ko dégg am na ñoo xam ne toog dugg ci oto yi di daw diggante bi dëkk bi dëkk bi seen xel xalaatu waaye saa bu ñu soxlaa at jaral na leen ko waaye saa bu ñu amee nag wote ñu lañ doon xàmmee sax dañ koy soppi yal na nu yàlla musal ci doxin woowu moo tax bañ naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ko yëj ji naan kii anut ak sagoom na ma yàlla baal ci baat bi daa wàcce aaya alxuraan layal ko ne kii dara jotu ko ba xalima tàmbalee bind ba fi mu toll nii ak ba ba muy bind ba ba faw dara wakku ko waaye li ko dal mooy jikkoom moo kawe léeg-léeg mu def loo xam ne danga naan kii daa matadi ndax day jàdd foo xam ne ñu bari ñu mu nanguwuñ faa jàdd di wax ak ñoo xam ne ñu bari nanguwuñoo wax ak ñoom di jël téléphone ñoo xam ne ñu bari nanguwuñoo jël ñoom téléphone jikko ji kawe moo tax ñu naan daa xaw a manqué tuuti noonu wala xale moo ma yasturuun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala xuluqin azim yàlla na yàlla defal dégg topp yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin